والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية والسلامة من كل سوء نجلين ngi leen di nuyu di sant borom di ñaan jàppandal ak njéggal baaxewaat nañu ñu dellu ci ànd quraanul karim te ñuy doore ci aaya téeméer ak juróom benn fukk ak juróom ci suuratul baqara alqaari a'uuzu borom bi subhaanahu wa taala ci joxoñ al ayat al kawniya kiimtaan yi mu sàkk ngir xel bu ko xelaat xam ne ku xereñ a ku mën a ngóog bam ñu leeralale loolu ba pare nag jëm ak ñun nag ci nit ñi nit ñi ndaxte ñu ngi tënkoon wa saxaabi almusaxari bayna alsamaai wal ardi la ayatin li qawmi yaqiluun foofu la ñu taxawoon niir yi taw bi mu ne loolu day kéemtaan la ci ku am xel xelu nañu kon mu waxal ñu ni ñu mel kon lii visé wul mais daa visé doomu aadama kon ñi jiitu nag ak ñi fi ne ak ñi ñëw ak ñépp rek mbir moomu day nekk ci ñoom ngir ñu moytu ko du ñépp nag mais ñen na moo tax mu ne la wa minan naas wa minan naas waaw bi waawul istinaaf day tàmbale wax min li tabiid ngir mu won la ne du ñëpp waaye am na annaas mooy nit ñi la di te amul mufrad bat buy wone mboolo te amul singulier ndaxte boo buggee dem ci mufrad bi ini insan kon insan nak kiam jam om du du du, du nas wa fi aminan nas am na ci nit ñi man koo xam ne yattaxisu day tànn yattaxisu day jàpp min dunil la ci ludul moo wutal bopam boppam fekk du yàlla mu daldi ci nip leg-leg muy nit leg-leg muy rab leg-leg muy tabax leg-leg muy ndox léeg-léeg léeg-léeg ku rek ak la mu téye mu ne am na ci nit yi ñoo xam ne doyu jël def ko lan def ko ay jam la benn bi mooy nidd nidd mooy nga def ko adversaire yàlla la nga doon wut ci yàlla di ko wut ci moom la nga doon jox yàlla am loo ko cay jox mooy niddun yu bari yi ñooy àndaad mu ne loolu daa am yuhibbunahum ka hubbillah dañuy bëgg dañuy sopp yooyu ñu tànn Ninyu warona begeyalla, nyom nol yàlla ñoom loolu lañ leen di wala ninyu begeyalla. bëggee yàlla seen wax ak waxu yàlla moo yem ca ñoom seen ndigal ak ndigalu yàlla moo yem ca ñoom seen tere ak tereeb yàlla moo yem ca ñoom almuhim yuhibbunahum ka hubbillah dañ leen di bëgg ni ñuy nga jaral na leen seen bakkan ak seen am-am kooku ñu tànn it jaral na leen seen bakkan ak seen am-am wala loolu tànn jaral na leen seen bakkan ak seen am-am kon kahu billah waaye nag borom bi subhanahu wa taala mu ne ñi gëm nag du loolu walladina amanu bu dee ñi nga xam ne nag ay jullit yu gëm lañu ashaddu xubban lillah ñoom moom yàllaa leen gënal dinañ bëgg leneen lu dul yàlla nag waaye yàllaa leen gënal kon fii fokk kon ñu gis ne mbëggeel mbëggeel ñaar la war a doon kon ci sharia mbëggeel mooy xubbu tabii mbëggeel boo xam ne ci lañ mooñee doomu aadama bëgg sa bopp bëgg say waajur bëgg say doom bëgg say soxna hakada kooku mbëggeel tabii kooku rab yi sax noonu lañ leen moo ñee rab yi sax rab day bëgg doomam day défendre doomam kon mbëggeel boobu ajuwul rek ci jaamu yàlla boobu moom amul amul amul solo boobu mun nga koo bëgg leneen baa keneen te du jeexantal ci sa pas-pas waaye mbëggeel bi nga xam ne nag mooy mbëggeelu pas-pas booy bu sharia bi boobu lay wax fii boobu la wax mu ne boobu moom ñi gëm yàlla moom yàlla jiitu ci ñoom yàlla bu xesee wax loo mën a doon foo mën a jóge loo mën a am loo mën a xam bu wuuteeg bopp yàlla rek banañ la non non ñoom la bu wuutee bopp yàlla rek banañ la bu wuutee bopp yonent bi banañ la li jiitu mooy bëgg yàlla teg ci bëgg yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam nga su seet nag lan mooy ñëw gannaaw ga lay wone lool nag mooy seen ndigal moom kenn mënu la koo tere seen tere moom kenn mënu la koo def defloo cofeel boobu la wax moo nekk ci ñi gëm yàlla moo tax ne walladina amanu ashaddu xubban lillah ñi gëm moom ñoo gën a dëgër ngëm ci borom bi subhanahu wa taala mune ne fa cofeel ya di dajee soo ko fa cofeel ya di dajee maanaa atte bu mujj ba ki nga xam ne yàlla moo ko mu teg ci sallallahu ak ki nga amna kenen kumu na keneen ku mu bëggoon na muy bëggee yàlla bu diglee kooku digle amna na sañ-sañu xool def la ko ca neex kooku lay wax mu ne la nag walaw yara alladina zalamu ñooñu dañu tooñ mu ne cëy boo gisee ñi tooñ ñan ñoo tooñ mooy ñi yemale yàlla leneen walaw soo walaw yara soo gisoon alladina ña nga xam ne zalamu tooñ nañu ndaxte def nañu bokkaale bokkaale bi mooy yemale nañ yàlla ak leneen boo gisoon nag iz yarawnal azab iz ba nga xamee ne ñoom ñi defoon loolu yaraw yarawnal azaba seen nañu mbugal ndaxte dekki nañu yowmal qiyaama gis safara ni muy yëngatoo gis xawdu gis siraat gis miisaan dégguñu dara lu dul kenn ki di tabaraka wa taala na leen ne lii moom mbugal la mune kerok keroog nag dinañu nangu dinañu xam ne annal al quwwata lillahi jamia keroog dinañ nangu ndeke kattan bu andak ak sañ-sañ yàlla moo ci yore lépp kenn amu ca dara ndaxte képp koo yaakaaroon da nga gis muy jalti jalti di daw tàggoog sagoom tiit ci boppam talula. ah foofu nag ñu ne aha ndeke yàlla am doole ndeke yàlla am sañ-sañ doole yépp moom moo ko yore ñu ne xam nañu tey nag wa anna allaha shadidul azab ndeke yàlla mbugalam bi tar na te jombul kenn sañ-sañam bi fës na te lu ko neex lay dal di def fàtteleku loolu tuub wéy na léegi waxub jaaxle lay doon waxub nag wut génnukaay ndaxte wóor na leen ne tey moom jafe-jafe la waaye fu ñuy jaar ba génn nag parce que yow la nga toppoon yaakaaroon ko wóolu ko mu ngi am jafe-jafe wóor na na ne loolu ci boppam am na jafe-jafe kooku it jàmmarloog ñoom iz tabarra alladina tuubiu mu ne ca saasa nag ñañu toppoon jox leen wàllu yàlla ñañu yemale woon ak yàlla mu ne ñu commencé di weddi tabarraa ñu ne yàlla uhu uh, ñun waxuñ kenn dara ñun diglewuñu tuus du ñun de waxuñ kenn dara is ba nga xamee ne tabarra a dëñ na weddi na allazina ña nga xam ne tuube u ñoom la toppoon ñañu toppoon weddi ne man kenn toppuma woon man kenn toppuma woon man digaluma woon kenn dara waxuma kenn dara terewuma kenn dara man xawma la kenn toppuma ñan lañ koy wax min allazina taba'u ña nga xam ne ñoo toppoon kon ñañu toppoon walbateku ca ñaleen toppoon ne leen xamuñu leen diggañu lu leen dara dara doxul suñ diggante abadan mel ni dañ leen posé question lu tax mu ne war a awul azab ndaxte ñoom ñëpp jàkkaarloo nañu ak mbugal gis nañu mbugal boo xam ne lañu doon jàllee ca àdduna dàkk na waxoon na ko ci aaya ca gannaaw mooy al adl ak al shafaa naam fala yuqbal wala yuxaz naam al shafaa mooy kuy def intervention yàlla ne fala yuqbal du ñu nangu intervention beneen bi ci tegoon mooy al adl koo xam ne da ngay joxe mooy rishwa koo xam ne da ngay joxe du intervention mais yaa am looy joxe Yalla ne fala yuxas kooko tàllal du ko jël kon problème amna? kon fii la ñu borom bi ne wara awul adan benn cause bi mooy dañu gis mbugal ñaareel bi amatuñu ci yow soxla te wataqattaat bihimul asbab dagg nañ sabab ya amatul soxlaatul ku ko liggéeyal soxlaatul ku ko jox soxlaatul ku ko màggal soxlaatul ku ko xeexle amatul ci yow soxla wa taqattaat bihimul asbaab sabab ya leen jokkale woon ba nga man koo topp di ko jox la nga waroon a jox yàlla sabab yooyu dagg nañu amatul léegi loolu adduna la woon waaye léegi ñu ngi àllaaxira foofu benn luwaa moo fa am kenn moo fay atte te moo yemale ñépp te ku maandu la mooy tabaraka wa taala kon wa taqattaat dagg na bihim ca al asbab sabab iya, ladon taki tax kii topp kii la doon tax kii nanguñu topp ko loolu dagg na kon birmi mi birmi metina. mi kon nang ña toppe woon ña nga xam ne ñoo toppe woon bu bu dee yëngatu ñooma bu dee défendre ñooma vraiment dinañu am jafe-jafe kon wa qaala alladina tabaw ñoom itam ñu ne gannaaw fii la mbir mi jeexee nii la mel fii lañu ñu mujjee law anna lana karra ñu ne yàlla est-ce que dellu amul law anna lana karra waaw yàlla est dellu amul doo ñu delloo ci àdduna ñun ñëpp rek ñun ñii ni ñu mel nii ak li ñu gis nii ak li ñu xam rek <coughs> nga may ñu occasion rek nga delloo ñu àdduna nga xool lan mooy dox suñ diggante law an na lanaa karra waaw buñ leen delloo àdduna nag lu ngeen di def ñu ne fa natabarraa bar kama tabarra'u minna ñu ne ñun itam ñu def leen li ñu def rek ñu feyu ñun itam dootuñu ñëw dootuñu déglu dootuñu joxe dootuñu aar dootuñu dootuñu ñun itam ñu taxaw ñu ne leen xawma leen ñu feyu yàlla may ñu rek may ñu rek ñu dem ñun itam fana tabarra'a minhum ñun itam ñu bàyyi leen kama tabarra'u minna ni nga xam ne noonu lañ ñu ko defee nii nii ci sa kanam yàlla ne kadhalika yurihimullah mu ne nii rek la leen yàlla di wone amalahum seeni jëf ku tooñ ku tooñ aaya bi mu ngi fi suratul baqara ñu ngi koy jàng bés bu ne waaye buñ jàngee nga sànni raxu sa gannaaw wala fekk yow mosoo jàng alquran mosoo fekkee fu ñuy jàng alquran mosoo fekkee fu ñuy tafsiree quran xëy yow déggoo aaya bi kon diine bil muy firi kon lan lay firi yàlla mu ne nii leen di wonee seen jëf jëf jalan lay doon xasaraat mooy rëccu mooy suma xamoon kon mbir mi baaxul suma xamoon suma ko xamee woon ni ni kon de lii duma ci fekk mooy xasaraat alayhim mu nekk ñoo xam ne dañuy rëccu am naqar wa ma hum bi min an naar mu ne ñii day gisuma fu ñuy jaar ba mun a génn safara mucc ci safara moom dina jafe ci ñoom lool lool ndax kaleen doon musal ci safara lañu wóoluwu doon kaleen doon musal ci safara lañu dëgluwu doon kaleen doon musal ci safara lañu bëgguloon mbëggal bu fés gannaaw yemale na ko ñeneen nag borom bi subhanahu wa ak maandoo mu ne waaw dem leen ci ñooña ñooñu ne leen xamuñu leen dem leen ci ñooña ñu ne xamuñu leen xamuñu leen digaluñu leen terewuñu leen suñu yoon nekkul ci yéen kon mbokk mi bu dee lii nettali yàlla la te fokk mu am mais lu tee ñu seetaat suñuy relation balaa ñuy weddi wante kay nañu seetaat suñu relation ñu xool li yàlla moom ñu jox ko ko bàyyee ko ko xool lu doomu aadama moom ñu sàmm ko ak teggiin ñu dund ci jàmm ci aduna fekki jàmm ci àllaaxira waaye safaan ba bu amee lii mooy am yàlla na ñu ko yàlla musal aaya yii am na lañ ca mën a dégg bokk na ca looy bëgg ci aduna na bëgg yàlla gën a tar na gën a féete kaw loo mën a bëgg rekk na bëgg yàlla gën a tar loolu may la ne li nga bëggoon bu baaxul rek bëgg yàlla bi mooy tax nga suur loolu moo xam yaay la moo xam baay la abul anbiya yi won ñu ko ci baayam mooy ibrahima alayhi salaam ba baay ja waxee mel nii mel naa mu ne ah man nag loolu du loolu de yàllaa ma la gënal mu ne kon nag looy de mu ne ma bala ma bala Inni zahibun ila rabbi sayahdini. Bye. Mune wow, mune salamun alaik. Demna, tagunala. Demna, banala. la dem na banaa la yàlla ma la gënal moo bàyyi ko ñi borom bi subhanahu wa taala ngeen roy da ngeen am uswatun hasanatun fi ibrahim walladina ma'ah. إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله من نيو نيغن ورا روينا نيغي مون إبراهيم لول لا نيوخون سيني نيت باي نانيو لين براء نيكو غاي واخي تبرا باي نانيو لين براء منكم ومما تعبدون اك لب لي نين دي جام باي نانيو باي نانيو جوتيتو نيو دارا كفرنا بكم ودي نانيو لين وبدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا xatta tuminu billahi wahda non dox na suñ diggante jeex na du ñu ànd ak yéen bàyyi nañ leen dem nañu xanaa ngeen dellu si waat de gën a bëgg yàlla ñu àndaat sinon déedéet yàlla mu ne ñooñu ñooy suñu royuwaay kon leer na ñaareel bi ndeke bëggeel dina doon bokkaale ndeke alxubbu min ashirki mbëggeel day doon bokkaale ndaxte ñoo mu ne bëgg nañu yàlla d'accord mais bëgg nañu leneen lu dul yàlla ni ñu bëggee yàlla mu yem borom bi tuddee leen bokkaale kat zalamu ndaxte zulmu mooy bokkaale kon ndeke booy bëgg ah seetal li ngay bëgg mbëggeel bi fan la yem ak yow bu doxee sa digganteeg yàlla rek bokkaale la bu doxee sa diggante yonent bi sallallahu alayhi wa bokkaale la loolu ngay bëgg lu mu mën a doon nag mbaa ku mu a doon ndaxte allahu wa rasuluhu ahaqu an yurdu yàlla mu ne ki gëm yàlla moom yàlla ak yonent bi moo gën a yey ci ki muy bégee yàlla ak moo gën a yey ci ki muy bégee yonent bi sallallahu wa sallam di wax ni am iman lam tajital an yakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Mune ne koo xam ne yàlla ak yonent ba moo ko gënal kudul ñoom ñaar kon loolu mooy iman feeg mbëggeel bi tolloo na rek da ngay gis shirk bidaa day bari parce que ñiy digle ñooy bari ñiy digle ñiy créé jaamu yàlla ñooy bari ndaxte ki nga yemale ak yàlla ci mbëggeel daf lay créel ay bida parce que fa mu am lu mu créé génne la ay ñaan génne la façon jaamu yàlla yoo xelaat ak yoo xelaatul dina la ko génneel parce que yow jàpp nga ne moog yàlla yem yàlla na julli kon mo warna naa mën a digle julli yàlla na ñaan mo warna mana dikle a digle ñaan yàlla na sarax mo warna mana dikle sarah? digle sarax hakaza parce que ñoo yem amma bu yalla yàlla la gënal nga ne uh uh yàlla digle julli kenn amatul droit digle ko xanaa nga soññe ci li yàlla digle mais amoo sos say jullit bopp yow itam abadan kon lii moo ñu indil problème moo tax ndeke cofeel day dem nekk bokkaale ñetteel ba bés penc relation yi dañuy jeex bés penc relation yi ndaxte relation mbokkoo relation intéret moo am moo nekk fii ci àdduna bi kii am ngeen relation parce que da ngeen a bokk da bokk direct da ngeen bokk dëkk da ngeen bokk service da ngeen bokk métier kon yooyu ay relation la am beneen relation boo xam ne relation intérêt la yow sa cofeel bi du dara lu dul intérêt faqat loolooy tax léeg-léeg boo gisee intérêt bu ëpp boobu nga dummóoyu ko moy problème politicien yi loolu moy sen problème ñom seen relation seen relation intérêt lu mu deuguer dëgër bu bo gisee faible na rek man nga ko rendi xalaas sa yoon nekkatul ci moom seen wuute lu mu metti métti métti métti bu intérêt bi ñëwé rek da nga yaakar ne ki ma jëm ci mom du mom mo la doon xéxal démb te veste bam doon sol changé wu ko kaddu bam doon wax changé wu ko na mu meloon changé wul lan moo changé sa intérêt yow gis nga loolu nag amul àllaaxira moo tax relation yi day dagg loolu amul àllaaxira àllaaxira benn dong moo fa ne nu may def ba mucc faqat ñëpp loolu la te kii musal kenn ki la mooy tabaraka wa lan moo doxoon sa digganteeg moom nag fa la jafe-jafe bi nekkee ñetteel ñeenteel bi tabarru ru'asa u shirk wa dalal wa du'aati charri wal fasad mimman ataauhum fi dunya ñañu toppoon ci aduna ci ay intere ay bokkaale lal ko ay bidaa lal ko ay tappale lal ko ay naxante lal ko bu ñu dekkee rek weddi ko xalaas parce que loolu loolu du jàll yawmal qiyaama al yawmal qiyaama du dem déedéet yawmal qiyaama loolu du dem al zulmu wa charru wal fasaad laysa yanfa'uhum shay'an bokkaale yàq mbon yawmal qiyaama loolu du jàll gannaaw du jàll nag amatul intérêt kon jaratu ko mooy tax lépp rek dal di walbatekuwaat nose jëm ci kenn ki amatul ku ñuy geesu amatul ku ñuy woo amatul leneen leneen nono amatul yàlla woote na ñépp nii rek ka annahum jaradun muntasir jaradun muntasir muhtiina ila daa mu ne ñoom ñépp benn itinéraire comme ay njéeréer mboolo diwla mboolo naalaa kii ci kii mu ne loolu jeex na mboolo amatul kenn moo fi ne rek moo woote mooy tabaraka wa taala ñépp jaar ci yoon wi jëm ca moom jaraadul muntasir te ku ci mu ngi jàq mu ngi tiit parce que kenn ay buur munoon nañ koo nangu ci àdduna nag kon bu ñu demee àllaaxira amuñu problème ndaxte lii ñuy wax am na ñoo xam ne ñoom yëguñu ko sax du ñu yëg ne sax loolu xew na du ñu yëg sax loolu xew na ndaxte heure jàqare moom tatanazzalu alayhim malaika allaa taxaafu wala tahzanu malaaka yi dal di cëppeelu nee non non non yow bul ragal bul jàq bul tiit yàlla ne la aljanna nga jëm yow amoo problème parce que ki nga soppoon moo intervenir keneen it ki mu soppoon na intervenir looloo indi jafe-jafe yi naam. borom bi mu ngi ci nit ñi gannaaw bam ñu nettalee li ci banu israil li ci yahudi ak nasraniya mu ne léegi nit ñi kon dugalaale la ñeneen ñu dul ñoom yaa ayuhan naas éehëy nit ñi kulu mimma fil ardi halalan tayiba lekk leen li yàlla defal ci kaw suuf muy lu dagan lu lewet lekk ko yuddaga ni aka bari barina mu ne ko ni lemal ci loolu lekkal loolu naanal loolu waaye li ne dafa haram aka tuuti mu ne kon bàyyi tanal tànnal lu dagan li nga lekk ko tanal li dagan nga naan ko tànnal li dagan nga sol ko li nga wax ko kon borom bi subhanahu wa taala doomu aadama kudu leklen. mimma fil ard li nga xam ne mu ngi ci suuf si xalaalan mu nekk lu dagan tayiban mu nekk lu baax waaye nag wala tattabiu xutuwaati shaytaan bul topp tànku shaytaane wala tattabiu bu leen topp xutuwaati shaytaan jéegoy seytaane bu leen ko topp de la tax ma tere ko innahu naka seytaane bobu ma wax leen lakum ñeel leen yéen ñii aduwum mubin sen non bu bir la bu bu kon bu ko topp bul topp lépp loo xam ne boo fa yeggee seytaane nga fay fekk mu taxaw xam nga ko fa ñu dafa feccee xam nga boo fa ñëwee junuudu iblis nga fay fekk fa ñuy naanee sàngara fa xam nga julur iblis nga fay fekk weerante woo ko sax fa ñuy defee njabar fa ñuy sànnee pettaaw fa ñuy fasee na la ne juludu iblis nga fay fekk kon yépp leeral na la mu bu fa dem yow nga far def ko mécci kon sa noon jekku na la sa noon jekku la mooy ñun jullit yi ngelawaay góor leen bu leen topp seytaane yow seytaane defal la lu lay atte seytaane defal la li lay atte moo tax dangay daganal lu xaram parce que seytaane boo ko tër foog nga daganal sàngara foog nga daganal njaalo foog nga daganal lesbien foog nga daganal góor jigéen foog nga daganal riba parce que lan la parce que seytaane moo ko tër boo delloon ci alquran de doo ko fa fekk lan nga fay fekk innamal xamru wal maysiru wal ansabu wal azlamu lum ci rijis min amali man xalaas min amali shaytan yàlla li mu wax leer na de yàlla li mu wax lu leer naññ la mbiru la nga dem fële nga gis ñu koy daganal kan moko daganal shaytaan nga topp ko ci kon borom bi fu ñu ne seytaan bu fa dem fu ñu ne seytaan mu ne waaw mu ne bu fa dem bul wolu sa bopp mukk ci seytaane abadan yàlla lim la wax ci seytaane doy loolu loolu auzu billahi mina seytaani rajim yàlla na ma yàlla musal seytaane kon bu ko fekki borom bi mu ne déedéet parce que sa noon la day tax mu jekku la num lay jekkoo innama ya'murukum bisu wal fahsha mu ne parce que seytaanu boo xesee ba lu bon rek ak lu ñaaw la lay digal lu bon ak lu ñaaw rek moo tax ñii campagnal seytaan borom bi mu ñoo lan ya'muruna bil munkar wa yanhawna anil ma'ruf mu ne ñoom dañuy digle lu ñaaw di tere lu baax parce parce que ñooy junuudu iblis kon mune bul dem de bo demee rek ñu digal lalu bon est ce que da nga mun a bañ boo demee rek ñu digal lalu lu ñaaw est ce da nga allahu alam kon mune bu fa dem foofa bu fa dem bul fekkee mooy ñetteel bim lay digal wa an taqulu ala allahi ma la taalamun moy fen def lay digal na nga wax ci dul def ya ayuha alladina amanu lima taquluuna ma la tafaluun na yow ki gëm lu tax li ngay wax doo ko def laa ilaha illa allah xoolal rek waxu yàlla aaya bi génnee ko rekk seet ko seetantal ko xool ñun li am xool ndaje yi tëgg yeeg pecc yi coow yi ak fen yi di wax loo manut di wax loo xamut di digle lo dul def di woote woloo amul xoolal rek ni mu mel ndekete yo shaytan la dañu woyu shaytan yi mu wax len lool ndax yaamurukum ya'murukum bisu'i wal fahsa'i wa an taqulu ala allahi ma la taalamun defal lu bon waxal lu ñaaw waxal ci yàlla yo xamné wajulo sax pour def ko moy fenal te yonent bi ne al muminu laa yakzib ku gëm yàlla du fen ku gëm yàlla du fen looloo tax jiite nit ñi tey jafe parce que dañu jàpp ne boo fenul rek doo ci génn boo fenul rek doo ci génn moo ñu indil problème parce que li ñuy tudde jikko naa fekk loolu la jàpp ne mooy solution promesse ku ko gëm yow la arrangé walla yow la engagé ku gëm promesse yow la engagé te yonentu bi ne bokk na ci jikkooy naa fekk ida waada axlaf kon yow yaa ngi digge yaa ngi jàpp ne ki ko gëm la la loolu ñu def ko ci suñu bopp yi ba ñu jàpp ne loolu c'est normal yaa axi ba léegi am nañu slogan bu mel noonu ñu teg ko ñu ne c'est normal maa ko waxoon nga ne waaw ne waxiit xoolal rek problème yi ak quran fi mu lay kiyee loolu yëpp seytaan la seytaane moo la koy waxloo seytaane moo lay yëkkati seytaane moo lay puus ngir nga mana a jamar jàmmaarloo borom bi subhanahu wa taala faqat attey borom bi nga puus ko fële parce que da ngay jàpp ne arrangé wu la na koo ni wu ko loolu la jàpp dëggu arrangé wu ko am na koo xam ne toog ci xalqatu tafsir arrangé wu ko parce que day xeebu nit ñi dañ koy xeeb day ñàkk considération am na koo xam ne benn euh, moment bi muy taxaw di julli arrangé wu ko dañuy jàpp ne moom évolué wul dañuy jàpp ne moom moom moom waaw seytaane bu ànd ak yow ba nga mel nii kooku fii xayr laa xayra fii laa xayra fii ñoon la yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam tudde woon ar ruway bida mu ne jamono mu ngi ñëw mu ne waaw mu ne da ngeen dund ak ruway bida sahabatul kiram ne ko ya rasulallah maa maana ruway ñu ne kaddu googu boobu ngay wax mooy lan mu ne rajulun taafihun yatawalla amral umma mu ne koo xam ne du tus te mooy njiit te du dara waxee fen bu diglee génn ca yoonam nekkul ci diine yoonam nekkul ci lala du tus kon borom bi subhanahu wa taala leeralal nañu de xëy na jullit bu xaw a sàggan rek mooy xaw a waaye amul lu fiy jaar lu dul borom bi leeral na ko xoolal aaya bii rek borom bi ne te boo demee ngir jubbanti leen wa ida qiila lahum muttabi'u ma anzala allah boo demee nga leen yéen ragal leen yàlla appliquer leen téere yàlla bi ittabi'u topp leen maa la nga xam ne anzala li yàlla wàcce looloo war a atte jullit yi topp leen ko ñoom ñu dal di la wax ne euh, qaalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi abaana ñu ne ah non non non non non ñun li ñu fekkee suñu baay yi loolu la ñuy topp te loolu it boo ko lëññate koo ci biir da ngaa gis ne du dëgg xaalu ñu ne ñun ñii li nga wax duñ ko def bal ñun nattabi'u dañuy topp maa la nga xam ne alfaynaa yi fekke nañu ko tàmm nañu ko aba ana ci suñu baay yi ñun loolu lañuy ñuy topp waaw bu fekkee baay bi ceddo la woon nag looy topp looy topp ceddo moo tax léegi dañuy dem di dundalaat ceddo ah dañuy dundalaat ceddo dundal bokkaale dundalaat kéeféer sàmm ko aar ko nag ñu ne lii kenn waru koo laal waaw ma nan nañ koy tuddee ah, ban njëriñ la am léegi demal gore kenn amul droit changer këram parce que noonu la waroon a mel yow ñu toroxal la jaay la def la musiba ba pare nga ne loolu da koy bàyyi mu nekk symbole ba léegi yaa ngi wéy nekkum jaam أي شيء في هذا لون mooy lan lan lii waroo koo changé parce que nangam man ci ban cause moo tax nit ki jullit bi bu xelaatee rek am naqaruk xol naam ab naqaruk xol tey yaa turaa fi xelu doomu aadama yi fi situation bi toll ni xam-xam néewee buñ la noon lalu yonent baa ngi kon musiba am nañ la wax këram baa ngi kon musiba ko kami xam ne day putu ci ay poto di raayu poto boo xam barki démb lañ ko tabaxoon jàkka ya, yonent bi ay bant la woon nga taxaw ci di raayu kooku buñ la noon mbubb yonent ya baa ngi nii def ah léeg-léeg ñu dem sax bay dugg ci lu kenn xamul nga kan kawaru yonent ya kawaru yonent baa yow nga ne da ngay gëm ah jaasi diwa ngi nii ay sey fi jaasi Aliou a ngi nii jaasi nangam jaasi lu ci ne lan moo nekk ci jaasi yaa tura jaasi ñuy reen seen bopp ne jaasi la ilaha illallah loolu dañ koo def ci seen bopp yi du dara Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul yére kan lañ ko sàngee ba mu faatoo yére yonentu bi sallallahu ko jullee yonentu yàlla ne boo ko jégguloo juróom-ñaar fukki yoon man yàlla maa bañ kii dama koy mbugal yére ba ban njëriñ la am mbir mi il faut ñu xam yàlla yàlla la de moo tax kii am tawxiid dina yëg loo xam ne moom kenn na koy yëg gis nga delluwaay bi rek du doon delluwaayu yàlla waaye ki nga xam ne daa gëm yàlla diw faatu na rek mu ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun waa keneen ku loo boo dem ne sama baay maa alfayna alayhi abaana ñun li ñu fekkee woon suñu baay yi mais yow bu fekkee sa baay yi yéeféer la woon na wala bu fekkee sa baay dégguloon diine wala bu fekkee sa baay daa sosoon bidaa nga wéy ci loolu rek xataa bi di continuer rek ba bés penc doo bàyyi ñu defar la yàqu woon ngir Allah mun ci yërëmaale sa baay waaye gën a rek gën sofat rek fa mu yemoon nga jël téeméer sofaat ci ba jël baay boobu def ko yàlla ba jël baay boobu def ko yàlla ba jël baay boobu def ko référence nit da koy bëgg nga bëgg ko nit bëgg ko amoo ci moom soxla xoolal musiba bi mu ñëw sa baay du yalla sa baay yónni wuñu ko sa bàyyi ëppul nit ñi xam-xam ëppul nit ñi sañ-sañ am na ñu bëri ñoo xam ne xamuñu ne sax mos naa nekk ci aduna bi yaa axi loolu mooy suñuy problème ñun problème yépp mooy loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala wax jaag wax te ñu ngi gis nit ñi di ko wax waaye mënuñu wax na yàlla wax na kon eh kon man du wax loolu ngir mun a weddi alquran wa yow kii weddi alquran la alquran waxoon ne botol lofi Liga ya ngay wax boo fa tolloo rek wax ko mënoo ca dara ndaxte lii waxu yàlla la ah bés bés bu ne yow boo wootee tawhid rek ñu ne weddi na mag ña waaw nañ ñu wax mag ñi ci lan la ñu woote woon xam nga foofu lañ war a yegg yow ne dong la ñu jaamu muhammad dong la nyuara roy alquran dong la ñu war a attewoo ñu ne weddi na mag ña ci lan la mag ñi nekkoon mag ci quran lañu wote mag ñi ci sunna lañu wote la tolok sen xam xam il faut ñu d'accord lolu ku ci nek la tolok xam xamam la tolok pas pasam fofu la wote ndax da jale xam xam yek pas pas yi kala abadan dajale ko dajale wuñ ko misal bi ci gëna yomb gën ci jégué ñu gën ko xam ñepp xam ko senegal ñepp wérante wuñ won né réewu qur'an la parce que loolu moo gënoon a jaaxal colonisateur bi mais fi ñu toll tey ci Quran ndax mos nañ faa toll ah ne leen waaw mbaa déet mosuñ fee toll ndax dañuy wax ne mag ñi defuñ dara déedéet dañuy wax ne yàlla na leen yàlla fay yiw sos nañu mais est-ce que complété nañu complété wuñu dañu sosoon mais des na lu bari sax loolu ju sosoon nag ñun ñu ñëw di ko gën a baaxal di ko gën a baaxal di ko gën a baaxal ba mu dëppoo ak na mu war a mel tey ñuy dem di gagné ay concours international naam waxuma la vingt ans de dix ans ci gannaaw boobu Sénégal mënul gagné concours international mënul ne mënu ko mais boobu Quran a ngi fi nit ñaa ngi mokkal Quran di def nangam ak nangam mais njàngin ba technique ba xam-xam ba yittewoo ba boobu looloo des boobu volonté rek la ñu amoon volonté mais xuruuf yi ah non non boobu melul noonu man fàttaliku naa gars yi di wax affaire Qur'an niñ koy jàngalee eh, benn waay ñëw ne est-ce que mun naa mun naa jàngale tajwid mooy jekk jekkalaat yi benn kilifa ne ko fii kenn du fi naaral. mais ku naaralul doo man alquran boo wolofalee du sotti de saalika sasaa u du sotti de naam fa man yaamal misqaala zarratin zarratin kayran kooku du jël kub de kayran kayran mais du jël kub hakada boo pëlalee du dem boo wolofalalee du dem looy def mu dem naaral foog nga naaral soo naaralul rek du dem parce que loolu mooy Qur'an loolu mooy tajwid wàccul ci sa làmmiñ dafa wàcc ala harfi daad mais looloo neex yàlla kon bu fekkee da ngay ne damay def lii ak damay def laa nangam da ngay nax sa bopp rek yaa xii boo delloo ci yoon wi rek gis résultat ba ñu delloo ci yoon wi rek gis nañ résultat kan mo kenn mosul yaakaar ne nit dina tari alquran ñu ne ko yaa gañe ñu jox la vingt millions mos nañ koo yaakaar vingt millions ah yaa xii nga nekk xale bu ndaw xale bu tuuti jox la vingt millions lu tax ñu jox la vingt millions parce que moo dàqa jàng alquran allahu akbar ah joxaat nañ ko huit millions voilà donc 28 millions ci xalé bo xamné majeur agul mu ngi soga tollu nak ci jang école ah hakaza ñu dem maroc jëlat fa victoire bi gis ngeen ya akhi qur'an li yalla wa khairukum man ta'allama al-qur'ana wa 'allama ki gën ci yeen moy ki jang al-qur'an jangale ko ah ñaata milliard lañu dugal ci pel bal pël bal est-ce que indi nañ fi dara tous tous tabaxal nañ ko ay stade wuutal nañ ko fédération wuutal ko ay entraîneur sàmm aar def lu ne mosuñu indi tous ñuy xeex daara di xaañ ay sëriñ daara di leen soofantal di leen tëj di leen doyadal ñu indi coupe internationale waaw ñooñu ku leen encadré woon lu ñuy def ah mbokk yi gis nga gëm sa bopp yëmul ak dara daara ku mu yar da gëm sa bopp wóolu sa bopp ku la ne nangam nga ne ko demal sama yoon nekkul ci yow yelwaan bi may lekk doy na ma ma lekk yelwaan toog ci der doy na ma mais loolu dina la tere jaar ci yoon bi abadan résultat yi ngay gis boo demee ci ñi leen jàngal dépense sax amuñ ko demal ci daara ya ñu jàngee da gis ne dépense sax sëriñ ba amu ko faf mais tere na koo def résultat tere wu koo def résultat de gis nga mbir mi lan la gëm sa bopp ku gëmul boppam doo réussir boo gëmul sa bopp doo réussir non non boo toppee ku gëm boppam ah moom mu utiliser la réussir bala fi oui boo toppee programme jàmbur moom yow li ngay def day sottal moom la muy def yow gannaaw rek ngay ne doo jiite mukk doo féete kanam abadan yonent sallallahu alayhi wa sallam leeral na de laa yazaalu qawmun yataaxaruuna hatta yuaxiruhumullah mu ne ay nit ñu dëñ mukk di féete gannaaw di bugg féete gannaaw di bugg a toppe ba yàlla far def leen ñu féete gannaaw gis nga ak nangam kon borom bi subhanahu wa taala leeral na de mu ne ñoom loolu la ñuy wax borom bi ne xanaa dañu xelaatul nag walau kana aba'uhum la yaqiluna shay'an wala yahtadun ne damay topp li ma sama baay yàlla ya mu ne bu fekkee nag sa baay amul xel te jubul kon looy def xam nga lii yàlla rek moo sañ te ci tafsir quran rek nga ko sañee ah ya. sañoo ko ci leneen de lii bu doon conférence da ngay raay dem waaye gannaaw téere yàlla ya bi la ha hakaza sama baay laa top. yàlla mu ne bu dee sa baay nag amul xel te jubut nga topp ko nga topp ko amul xel wala nga topp ko dëgg ah yàlla ne du noonu de gis nga mu ne walaw kaana ah walaw kaana ah yow nag li ngay wax même su fekkee ne abaaukum seen baay la laa yaaqiluuna shay'an dara walla yahtaduun te jubuñu ndax da nga leen di topp ñoom ñu ne waaw ñoom suñ bàyyi rek gis nga problème bi te problème bi nak ñu bari ñu koy dund de boo gisee yàlla wax ko dafa am yàlla du moytu amut dedet. yàlla dula la nettili amut yàlla dula la dig dul def yàlla dula la wax lu mu xamut déedéet lu mu xamut mbaa lu mu narut la loolu jikkoog doomu aadama la kon aaya leeralal nañu lii bokk na ca képp ku dund war ngaa góor góorlu di sàkkul sa bopp lu lew mooy xalaal nanga wut lan nanga wut lu lew sa dund bi fexel lu lew parce que bokk na ci sartu nangu ñaan mooy lekk lu lew naan lu lew sol lu lew woo ki nga war a woo mooy suruutu du'a naam daa am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi ne ko dewaa bëgg nga ñaanal ma lu ma ñaan yàlla mu may ma ko mu ne ko at yib mat amaka de lekk lu lew lu ñu sàcc lewul alalu ger lewul weexalu buxabakat lewul tappale lewul carte lewul jaay lu xaraam lewut leb bañ a fay lewut hakam do yeb lewul waro ko lek kon ay leral nañuy nañuy lek lu lew ñaarel bi yalla lewal way du doomu adam al halalu ma ahallahu allah wal haramu ma harramahu allah lu dagan yalla koy daganal lu haram yalla koy haramal na autorisation moy daganal mais am na fooy mun a jaar fii am autorisation jaay sàngara ndax dina tax mu dagan mais yow daganal nañ la ko autorisation mooy tax jigéen nekk jaalokat am na fooy jaar am carnet moom moom moo ngeen di dégg ñun koy tuddee karne sante dangay dem am carnet naam nga ne man lii nii laa bëgg nii laa bëgg a dundee ñu bindal la karne jox la kon am nga autorisation moo tax bu ñuy ramasse ñuy laajte autorisation bu ñuy ramasse jigéen ñi guddi dañ leen laaj autorisation ku ñu ramasse mu ne nii génnee carnet police bi da koy du kooku amul autorisation est-ce que dagan na kon du autorisation mooy daganal laay daganal mooy allah allah mooy daganal waaye du autorisation te ca yërëm naa ka signé autorisation ko amama allah tuhillu ma harrama allah yaay autorisé li yàlla xaraamal kooku yërëmtalu na bés bu taxawee ci kanam borom bi subhanahu wa taala iz wuqifu amaama rabbihim ba leen taxawalee ca kanam foofa ñun dey taxaw boobu moom yàlla buñ ko fekkee ñetteel ba xaraam na topp jéegoy seytaane jéegoy seytaane topp ko lu xaraam la bépp jëf boo xam ne seytaane bokk na ca bako ñeenteel ba war na ku ne mu sori lépp lu bon ak lu ñaaw ndaxte bu ko jegee rek dem na ci ndigalu seytaane lan la wax yaamuruhum bi suui wal fahsha kon lépp lu ñaaw ak lu bon bu ko jegee boo ca demee rek bokk nga ci ñi seytaane digal juróomeel bi xurmatu taqlidi man laa ilma la xaraam nañu fal ku xamut ku jàngut kenn waru koo fal koo xam ne jàngut rawatina fa ñuy saytu réew mi fa ñuy jaaral luwaaya ñu yóbbu fa ku feru ij moo tax loo fay dégg tàccoog saagaak xeex rek ah ku xamul moom day yaakaar ne eh, isbaatul wujudam mooy bagaar luy tax ñu xam ne mu ngi fi mooy bagaar na yuuxu na tàccu na xeex na saaga parce que loolu la xam xamul dara projet de loi moom xamul sax luy loi faf constitution sax xamu ko xamul sax lu fa ne lii jëriñ doomu adama sax xamu ko ñu ne moo la fa toogal di la seetal yow sa dund nu muy demee di la programme fekk laa yàlla mu sey ci biir aaya yi xaram déedéet am taquluuna ala allahi maa laa taalamuun yow nooy càmbaree loo xamut yow mënoo liir ñu jël kii bi teg ko sa bureau place bi ngay toog nga ubbi te mënoo liir ne xuj rek seet boo i geesoo fi geesoo fi gaa yëkkati rek nga ñu coom subhanallah la hawla wala quwwata illa billah mais loolu dañ koo dund xam nga nit ki li muy dund alquran wax ko mais yow sa kàddu li waroon rek nga ne subhanallah lii ba ko alquran di wax booba lii ñuy wax ni amu ba yonent wax ruwaay bi da booba lii ñuy wax ni amul mais jamono dem na ba ñëw na gis nga ko nga nekk jullit gëm alquran yaa axi war nga am position boo xam ne boobu ngay taxawee juróom benneel ba jawaaju jawaazu ittibaai ahlil ilmi wal axzi bi aqwalihim nit ki ki mu war a topp mooy ki xam muy jël ay waxam parce que ki xam dalay yóbbu fa nga war a jëm ki xam yàlla nena la lay wax du la wax sama baay nena yonent bi nena la la wax du la wax sama maam nena baayam ak yaayam yónni wuñ ko ci yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ñu yónni ci yow alquranul karim mooy waxu yàlla kookoo la sàkk na la delloo foofu kookoy ki xam lam lay wax da la koy jox firnde ne lii ak lii la lii la yàlla wax lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu topp ko waaye gént naa foog yaakaar naa sol nañ ma won nañ ma kasfu nañ ma yëkkati nañ ma wax yooyu dafa am fayda amul dara yow loolu yëpp am nga ko te manoo dara manoo dara ilal an ah waay waaye waay nañ ñu sol xam-xamu technique nañ ñu sol xam-xamu mathématique nañ ñu sol xam-xam yoo xam ne dañuy mën a produit mais yow xam-xam bi ñu la sol rek mooy seen naa al arsh rek fat fa la yem yàlla sol na ma rek ca la yem yàlla xamal na ma rek ca la yem ayu faayda talaabu seytaan loolu seytaane mooy fooyee doomu aadama yi te seytaane yàlla nañu ci yàlla musal naam wa masalu lladiina kafaru hasbuk ñi mel nii la yàlla di wax ñi nga xam ne seytaane këf na leen sant na leen defloo na leen ba jeexantal na ci ñoom borom bi mu ne nii la ñu mel wa mathalu lladina kafaru mu ne la doon melal yéeféer ka mathali yan'iqu bima la yasma'u illa du'aan wa nidaa day mel ni kuy xaacu ci koo xam ne daa tëx loolu lan la yàq effort yan iqu bi maanaa kuy yëkkati ab kàddoom ci lan bi maa laa yasma'u ci koo xam ne mënul dégg du dégg illaa du'aa wa nidaa lu dul rek day jàpp ne kii dey daa am lu mu bëgg daa am lu mu lu mu bëgg moo tax ñu ne fii li mu wax ci addu'a mooy talabul qarib talabul qarib koo xam ne mu ngi wax waay daa jege annida mooy albaid koo xam ne daa daa sori mu bëgg laa wax ne jege baag sori baa ci yem parce que yéeféer la mu ne loolu dong mu ne ni kooku la mel ni ki nga xam ne daa jege walla daa sori di woote waaye ki muy woo nii la mel summun bukmun umyu mu ne dafa tëx dafa silmaxa dafa luu kooku lay woo mu ne kii woote am na ku ko xaw a jege di woote am ku ko sori di woote mu ne moo yem parce que lan moo tax moo yem laa yasma kooku du dégg du dégg du gis mënul wax mu ne yéeféer noonu la sum nopp ba du dégg bukk làmmiñ ba mënul wax um bët ya mënul gis kooku nooy def ba xabaaree ko dara man de xaw ma ndaxte boo ko laala it day yëg ne rek am na lu ko laal waaye loo wax xam nga koo xam ne sël ma xana waaye nopp yaa ngi dégg kooku boo waxee day dégg koo xam ne tëx na waaye bët yaa ngi gis kooku boo liyaaree dina ko dégg muuma hakaza waaye kii nag lépp la boole faf borom bi subhanahu wa taala mu ne yéeféer bi noonu la mel fa hum laa yaaqiluun amuñ xel te tey ñun jàpp nañ ne yéeféer bi moom presque yàlla la ñun loolu lañ jàpp dañ jàpp yéeféer bi moom presque yàlla la lu mu wax rek musallam ba léegi de def lay imposé yéeféer bi daf lay imposé boo gisee ñu ñuy imposé góor jigéen yaa axi mais dangay jaaxle sax imposé la ko puissance yi dañ la koy imposé léeg-léeg mu nekk condition dootuñ la lebal dootuñ la jàppale dootuñ la aar ah lu toll ni président États-Unis ñëw ba fii di imposé pour ñu nangu constitution bi góor jigéen premier ministre Allemagne yow ba fi imposé pour ñu nangu góor jigéen yaatura yow da ngay jaaxle mais mais lan la góor jigéen ban njëriñ la am lan waaw loolu mooy seytaane pire yaamuruhum bi suu'i wal fahsha faqat mais ñoom seen bopp sax xam nañ ne góor jigéen amul amul sens xam nañ ne lesbien amul sens ban sens la am loo xam ne du produire ban sens la am waaye ñoom amal na leen sens mooy diine nañ ko faxas ba kenn dootul déglu diine diine dootul digle dootul tere loolu mooy seen jéego ñoom bu ñu ba mel noonu rek ñu moom ñu diine dong moo tax ba ñu ngi résister mais bés boo sànnee sa diine rek ñu def la mbaam te mbaam ngay wal billah parce que yow mi gëm àllaaxira nag boo sàgganee bi ñu def la mbaam nga nekk mbaam ci àdduna nekk mbaam àllaaxira yàlla na ñu ci yàlla musal kon aaye bi e, am na mbir yu mu joxoñ mooy li ñuy tuddee tasliya mooy soulager la tasliya soulager la gannaaw ba mu waxee wax lii wax jullit bi nii kii bi nii kii bi naa mu dellu soit ci yéeféer bi mu ne yéeféer bii nga jàpp ne dara la nag du tuus parce que loolu def nga ah ndeke nangam beeg nangam be du dara du tuus kon loolu day tax nga moomaat sa bopp nga dal di taxawaat sori caaxaan yi jàmmaarloog seytaan ah, ñaareel bi dëgg-dëgg nag waruñu fal caaxaankat hurmatu taqlidi li ahlil ahwa caaxaankat ya axi koku ci ci ci ci ban reference nga ko joxe li nga ko joxe lu dul caaxaan nga ko ko joxe amul lenen amul lenen kon lulu, ñu bàyyi xel ñetteel ba mooy wujubu talabil ilmi mooy gis nga jàngi lu war la ku toog fi jàpp ne nangam nangam waaye bés boo deeyee nga xam nga xam ne yàlla jàngi la digle jàngi duñ ko jëngal kenn ndaxte mënoo nite te jàngoo anta normal te jàngoo mën a jiite te jàngoo jub kàddu te jàngoo mais loolu mënta ne ku xamul xamul ku xamul rek xamul kon kenn bu mu sàggane yang de njàng moom lu war la ñeenteel bi laa yutaaba illa ahli lilmi walbasirati fi diin mune ne diine boo ca soxlaa dara demal ci ña ko diine rek ngay soxla nga dem ci ku jàngul diine rek mais boo feebaree rek médecin ngay wuti léeg-léeg nga wuti professeur port bi bu dajee koo rek da ngay daw nga ne wool ma menuisier bi weñ bii bu dammee rek nga ne waaw seetal ma soudeur métallique bi ndax xëy na hakaza mais diine bi jotee rek koo dajal ci mbedd bi nga ne ko nangam diine ku jàngul ku xamul dara jàngul ferul ijji mu ñemee toog rek naan yàlla xamal na ma lu ko yàlla xamal yow wóor na la ferul ijji nga dem nga ne ko sama diine yow laa ci wóolu yaa xii loolu nit ki day nax boppam rek de parce que yeneen yëpp nanguwoo ci wóolu sa yaram bii sa yaram bii doo feebar mukk nga ne daa dem ci menuisier bi mu jël marto mbaa mu jël sii baa mu jël pont doo ko d'accord de parce que moom loolu lay liggéeyee moom martoog scie ak pont la am mais boo feebaree doo dem ci moom de doo dem mu daaj la de mukk fan ngay dem ca médecin ba ka ko jàng ñu ne moom la jàng mu sol blouse ba toog ñu reconnaître ko ci kooku ngay dem toog nga ne ko ah man day nangam ak nangam ak nangam te lum la def loo nga nangu ko sumil mbubb mi yéegal fi kilifa goo mën a doon nag sumil mbubb mi nga summi yéegal fii tëddal noyil bankal sa tànk bi defal nangam loolu yëpp mu dal di ko def nag nga bàyyee ko sa bopp parce que da jàpp ne lii la xam lii la jàng waaye menuisier bi bu la noonu summil sa mbubb rek ngeen xuloo waaye yow loo may summiloo sama ah, mbubb du xam nga ko noonu nga mel ci adduna bi léegi nag diine ji jot nga ne yow ki jàng diine moom xamul dara ki jàng diine kooku daa weddi mag ñi kooku li muy wax tegu ko fen te moom moo jàng diine ji yow jàngoo ko yaa xi diine dañ koy jàng ba nekk ci spécialiste niñ koy nekkee ci médecine bi noonu lañ koy nekkee ci diine ji da ngay jàng spesialis, nekk spécialiste ci diine ji ah, yaa xi kon nañu bàyyi xel bu ñu soofantal xam-xam jamono nag ñëw na ba léegi dañu soofantal xam-xam léegi dàpp nañ ne xam-xam du dara jàpp nañ ne tappale rek mooy tax nga jàll mais xam-xam moom la tappale rek yàlla nañu ci yàlla musal borom bi subhanahu wa taala dellu siwaat parce que la doon nit ñi tey nag daa seppiwaat couleur ci nit ñi mooy ñan mooy ñi gëm abdullahi ibnu mas'ud radiallahu an mu ne foo dégg yàlla ne yaa ayyuha alladina amanu ar in sam imma amrun yu'maru bihi aw nahyun yunha an mu ne foo dégg yàlla woote rek yéen ñi gëm mu ne dékkal sa nopp ndigal bu ñuy digle la walla tere bu ñuy tere te bu dee ndigal da ko war a jëf bu dee tere da ko war a bàyyi kon dékkal sa kon yàlla ne na yaa ayyuha alladina amanu ee yéen ñi gëm kulu lekk leen min tayyibaati ma razaqnaakum yu dagan yi ma leen wërsëgal lekk leen loolu am na fa lu daganut mais man yu dagan yi ma leen wërsëgal mu ne waaw lekk leen loolu waaye bu ngeen lekkee ba pare lal ngeen di def washkuru lillah Boleh kebe pare sant Boleh kebe pare naam sant ma sant kebe pare ceeb bi neex pare nga waa ji mana mën a togg d'accord mën naa togg waaye daa am ceeb soo amuloon ceeb dina togg waaw ki indi ceeb bi nag bu ko fàtte de neel alhamdulillah waa ji alhamdulillah waa ji mën naa togg de loolu la waaye neexaay togg bi rek boo ko ko delloo juum nga moo tax yàlla ne washkuru lillah na nga sant yàlla na nga sant yàlla mu ne xoolal fruit yi ñu ngi leen di roose ci benn ndox ñu ngi sax ci benn suuf bii xat bii yemamaay bii saf suukar ci benn place bi benn tool bi nga ko samt kani bi boo ko jël mu xat léeg nga jël mango boo xam ne neexul léeg nga jël allah yàlla mu ne waaw doo xelu ñoom ñëpp nag bi maa in wahid. benn ndox lañ leen arrosé ci benn suuf lañ leen samp kon sant leen ma yàlla mu ne nañ ko sant washkuru lillah washkuru lillah sant leen yàlla in kuntum iyaahu taabudun su fekkee ne moom ngeen di jaamu sant leen ko su fekkee ne jaamuwu leen ko nag sant leen ki ngeen di jaamu loolooy wax ji kon kii jaamu yàlla bu lekkee day sant yàlla kii jaamu leneen nag bu lekkee loola lay sant parce que loolu lay jaamu looloo nekk ci biir xol bi kii jaamu yàlla day barkeloo ci turu yàlla ca la muy lekk bu fekkee leneen la nag turub loola ngay barkeloo ca la ngay jël affaire bi dafa jege de waaye càgganteeg doomu aadama ñoom yëguñu ne booy lekk ne bismillah ibaada la jaamu yàlla la waaye boo nee moodu jaamu nga ko ndaxte mooy moodu defal ma barke ci lii may lekk dàqal ma fitnaam may ma ma rees ma nekk ci jàmm boo nee bismillah loolu nga wax ndaxte baabi bi taaddi yaani bi barakatillah boo nee moodu nag la nga joxoon yàlla jox nga ko moodu te moodu amu ko faaqidu shay laa yuuti yàlla mere na la te moodu yëgu la loolooy problème bi yàlla mere na la te moodu yëgu la yëgul ne sax tudd nga ko yëgu kon nit ki na ci na ci bàyyi xel loolu jaamu yàlla la yàlla ne innama harrama alaykum almaytata waddama ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ñeenti biir junj na ko fi yàlla mu ne innama harrama li yàlla xaraamal mu tënk ko ndax lii rek la yàlla xaraamal dinañ ci ñëw mu ne na nga xam ne li yàlla xaraamal ci yéen mooy almayta mooy médd mu ne mooy lan médd loolu rek la yàlla xaraamal ci yéen lan mooy mbir bi mooy lu ñu rendiwul yonente salaa sallam mu ne daganal ah yàlla ne médd Yunus bi ne daganal nañu ñaari médd mu ne li bàyyeekoo ci géej gi ak ndax dañ koy rendi est-ce que Batu medd yo wu ko kon sunna munuñ koo bàyyi gannaaw jën kenn du ko rendi jën da ngay génne rek ñoddi mu ñëw moo xam jullit la moo xam yéeféer la xalaas nga dem lekk mais rendi wuñ ko kon alquran fokk sunna nekk ca wet ga mu leer mu ne kon haramal na ci yéen medd ak deret ak yàpp mbaam xuux ak lépp lu ñu rendi tudd kudul yàlla mu ne li yëpp xaraam nit jël ab ab ab xaram tëral ko ne moodu ne ko faseet mais dul de waaye xaraam na lu tax parce que bañ koy rey tudd nañu kudul yàlla yàlla mu ne lii lañu ñu mbaam xuux waaye mbaam sëf dafa xaraam kan moo ko xaraamal yonent bi sallallahu alayhi wasallam fii xasoti xaybar ne kenn bu fi lekkati mbaam sëf kon mbaam sëf it xaraam na kon sunna kenn mënu koo bàyyi gannaaw kon ci loolu dégge nañ ci fas xaraamul fas xaraamul mbaam zèbre xaraamul parce que bokkul ak ci yi ñu wax ne dafa xaraam bokku ci nit ki nag mën naa wax ne bugguma ki wax na mun naa wax bugguma borom bi subhanahu wa taala mu ne ñeent yu xaraama ngoo ñun teg nañ ci xaat yeneen ñett teg nañ ci lépp lu génnee ci biir géej gi ba fuqaha yi dal ci wuute ñu ne barmaa i lan mooy atteem barmaa i loo xam ne day dundu ci géej mun naa dund ci biti xam nga jën moom mënul dundu ci biti moom mu génne rek dee na waa léegi jasit bi nag ak euh, hippopotame bi fuqahaa yu wute ci fuqahaa yi ne gannaaw asloom dunduwaayam biir ndox mi la kon moom day dagan ñenn ne déedéet gannaaw mun naa génn ci jawwu ji nekk fi deewut kon il faut atteem day doon atte barri beneen wax bi ñëw teg mu ne noonoo fa mu deewee mooy atteem bu deewee ci biir géej gi ñu ne méddut man nañ koo lekk bu deewee ci biir jéeri ji ñu ne dafa médd parce que rendi wuñ ko hakada fuqaha coono bi yëpp ñu ngi koy sonn <coughs> ngir lan ngir moytu lu xaraam ngir moytu lu xaraam waaye borom beeg mbaaxam mu ne famani itturra gayra baaxin wala aan faman itturra koo xam ne li ko dab mooy li ñu ne malgré amul lu mu def lekk mbaa dee kooku muy na attention min xayri bar, fekk nekkun ku fettirlu wala aadin fekk nekkun kuy jalgati fekk xaqiqatan lii moo am waaye maa ngi nii dëkk baa nga le damaa xiif la foog mu wóor la ne dangaa xiif amoo fo lekkee te munoo munatoo fii romb mu ne kon loolu médd boobu boo ko lekkee amul problème amul problème parce que beew taxul nga lekk ko jalgati taxul nga lekk ko li tax nga lekk ko mooy sauver sa bakkan kon liñ caay déggee mooy bakkan dañ koy sauver mahma kaan luñ ci mën a def rek bakkan dañ koy sauver hakada kon borom bi subhanahu mu ne ki jaar foofu nag fala isma aley mu ne kooku amul bàkkaar ca la mu lekk inna allaha gafurur rahim yàlla day jéggale waaye day yërëme parce que moom yëg na ne jaamam bi dafa dafa xiif yàlla xam na ko te joxu ko dara lu dul medd bii rek moo fi ne lu dul yàpp mbaam bii rek moo fi ne fuqaha yu wuute nag ci koo xam ne dafa fot te sàngara rek a fi ne ndax dina dagan mu naan ko Fi fuqaha yi xaccoo nañ ci bu bu baax a baax donte nag malgré jàpp nañ ne bu fa sësee mën na ne waaye problème bi du foofu problème bi fan la ne naka la jullit sàgganee ba nekk foo xam ne sàngara dong moo fa ne ngay lekk te yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne jullit warul toog ci taabul bu kopp sàngara ne ha am na ci part responsabilité mais yow nga toog day garaawul kopp sangara baa ngi nii garaawul lekk ne xuub ñu def ni ñu def ñu ne ndox ñu ne ndox amu fi ñu ne kon sangara be fi sës dee foofu wóorut de dee foofu wóorut de ndaxte bu dagane it nga far mais dañ lay nga fu sangara ne fi kopp sangara bi ne lu tax nga toog fa lu nga wuuti fu ndox ne kon anam yep yëpp fuqaha yi càmbar nañ ko te situation yooyu yëpp dina dab doomu aadama yooyu yëpp day dab doomu aadama moo tax gis nga ku dégg sa diine kenn gënulaa yeewu kenn gënulaa ñor problème aduna bi léegi mooy loolu léegi nit ñi dañuy jàng diine de léegi melatul ni mu meloon au temps de non non non non léegi ay université yu taxaw ñoo fi ne di jàngale diine yu taxaw di jàngale diine bu leer naññ ay junni junni ñooy ñooy ñooy génn léegi ci université yi di ñëw époque ci gannaaw boobu melul noonu de boo yëngoo ñu ne téere yu weex yi nga xam ne téere bii tey am na jamono boo xam ne fekkoon ne keroog la ku yuur lu gis ko rek day génn dem yooyu ñii téere yu weex yi lañ yore romb nañ ko léegi dangay ngay dem université fekk yaa ngi toog fii demoo fen jàng bi am sa doctorat fekk yaa ngi toog sa kër demoo fen jàng en distance naam ab téere presque amatul xamal turu téere bi rek nga jël sa portable dugg Google Play nga ne téere sangam laa bëgg mu ne la taj paas sangam laa bëgg génne da ngaa bëgg a partager dangaa ngaa bëgg a enregistrer da ngaa bëgg a photocopier loo loo bëgg rek loo ci bëgg rek da nga koy imprimer loo bëgg rek mu ngi sa kanam ah loolu nag bu aduna demee ba ubbeekoo noonu. ki nga xam ne lu lënt nga téye woon dootul dox de loolu indi coow yi ak yuuxu loolu dong moo ko indi bu njëkk muñ laa wax ne jàkka bu fa dem jàkka ja bu fa dem nga ne man jàkka ja ma fa dem parce que am na koy ragal am na koy ruus am na am na am na am na jàkka ji léegi da ngay tëju sa biir ne génnee sa portable jàkkaarloo moom génnee kaamil bi di déglu yaa ngi sa biir néeg yaa ngi ci sa oto yaa ngi ci sa avion di déglu tafsir Abu Ubayda bu commencé ñaata ñoo koy suivre ñii ñu ngi France ñii ñu ngi Allemagne ñii ñu ngi Amérique ñii ñu ngi itali ñii ñu ñii ñu ngi Asie ñii ñu ngi fu ne ñuy ànd ak yow ci dars bi bu leen neexee ñu génnee kaamil bi di xool aaya bi nga toll baat ak baat <laughs> mbir yi yombatul de mbokk yi moo indi coow yi coow yi léegi ni ñu tënkoon nit ñi di leen nax di leen def nangam ak nangam olof yi doon ko léeb golo du liggéey baabul léegi nak ay baabu na fi ne léegi baabu yee bari Mo indi coow yi gis nga baabu nii ñoo fi bari léegi bu nee tël nga de damay ñëw nangu affaire nga yurnu eh baabun la problème la de mbokk yi yàlla na jàmm yàgg kon borom bi subhanahu wa taala yooyu muy junj yëpp ngir namm suñuy xel yi la ñun jullit yi aaya bi am na luñ ci mun a déggee yàlla xiirtal nañu boy lek na nga lekk lu dagan booy solu na nga solu lu dagan te bu mu ëpp na yem loolu la ñu borom bi subhanahu wa taala jàngal ñaareel bi warna na foo xiwlu rek na nga nangu xiwal bi yàlla la ko jox nga sant ko ci xiwal boobu ci sa làmmiñ ñetteel bi xaraam na ñu lekk la mu tudd lu dul nga nekk ci tolluwaay muy médd ak deret ak mbaam xuux ak lu ñu ren di tudd beneen tur bu dul haram xaraam na lu dul nit ci jafe-jafe ñeenteel bi li ñu dagan na nit lekk ko su fekkee ne moo fa bu ko deful ragal na ne day dee yàlla mu ne lekk ko ba génn ci situation boobu nga bàyyi juróomeel bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digle na nañu lekk jën nañu lekk njéeréer te kenn rendiw ko kon yooyu bokkul ci yi njéeréer njéeréer dañ koy lekk xëy na ñun suñu aada moo ko xamul mais njéeréer njéeréer dañ koy lekk moo tax léegi arabie saoudi boo fa nekkee léeg-léeg bu njéeree di ñëwee bu ñu ko pompé télévision beeg rajo yëpp day wax ak journaux yi ñu ne attention nag hazir jarat laa yasluh lil akl mu ne moytu leen de njéeréer yii kenn mënu koo lekk parce que dañ leen pompé kenn bu mu ko lekk kon ñoom ñoom dañuy lekk njéeréer kon njéeréer dagan nañu lekk ko man ko na ñu fi nekkoon dañuy lekk njéeréer amul problème en kan cas njéeréer boo ko deg deg dëgg de tuuti la sore sipah pax de tuuti la sore sipah. pax maa ngi Abdul Karim Okbo ñun ñoo bokkoon Medin. Médine yàlla def nag ñu génn teqale ko lu nyu ay at ñu invité ñu ñu dajewaat Arabie Saoudite daje Makka ñu dem ci hôtel bi indi lekk yi man ma dem jël sipax mu toog mu ne yii Ousmane pour la ñaam taa gil di xan mu waaye pël du lekk yax euh, sax <laughs> parce que da doon kaf hakaza kon borom bi subhanahu yooyu yëpp ay nammel la yoo xam ne day bëgguñu xelu yal nañu yàlla baaxee xel yal nañu yàlla sàmm aar ñu nañu yàlla jéggal taxawuñu باخي نوير أغويرلي وما ذلك على الله بعزيز والسلام عليكم ورحمة الله